li si yéenekaay yi ak Ami Dem Senghor. internet du 5 nopp ma dégtale li si yéenekaay yi laata bi la ñu koy dooree yéenekaay bi di ñu xibaar ni Abdoulaye Makhtar Diop di grand sëriñ bu Ndakaaru gàggantina Macky Sall ci projet bi mu jël ngir rek jële fi yenn ci ay ville si noonu mu xamal ko rek li nga xam ni moo nekk dëgg-dëgg ci texte yi ba tey rek yéenekaay yi group des médias bi xam ne na ni mu njaay siise taxawaay bu dëgg rek la taxaw ci mbir mi ba tax rek mu ne dina taxawal mouvement boo xam ni day jàmmaarloo ak bëgg-bëgg njiitu réew mi ñeer rek jële fi ville de Dakar di ko dëggal ndax fësal na xam ne na ni rek àndul ci jële fi ville yi ba tax rek ñu bëgg taxawal mouvement euh, bu mag a mag ngir rek ñu bàyyi fi ville yooyu mouvement bi nag 2MV rek lay daal di tudd euh, lii quotidien dinañ ca feelu ndax bind na ni waa société civile bi euh, ci guerre rek ak état bi la ñu nekk ndax ànduñu rek suñu jële fi ay ville yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi Sud Quotidien ne mu njaay siise ak i farandowa mbooloo bu takku rek la ñu woote ñu jàll ci source a ak lu ñeer rek dialogue national bekk ni nga xam ni noonu la ko Famara Sagna doon doxalee yéen kaay bi duñu si xibaar ni Famara daraam nattalul koppar gi nga xam ne moom la ñu ko nattaloon ngir rek mu doxal comité de pilotage bu dialogue national boobee ba tey journal bi xam le na ni moom Famara nga xam ni ñoom la doon liggéeyandoo daawuñu ko yëkk waaye loolee mujjul fenn ba tax l'observateur ne Famara cas la pour palais ba ndax rek nanguwul wax ak général ñaam bi nga xam ne njiitu réew bi Macky Sall moo ko fa yebaloon ba tey suuf su a xam le na ni li mu ko xamal rek mooy ndax xam nga ma bu leen ma sonal ak lu tax nga may woo Le Quotidien ko mandat réew mi nga xam ne nag jur na coow bu baax a baax ci réew mi kàddu yu si Aliou Sané daal yëkkati li mu xam ne rek mooy euh, Macky Sall bëggee amaat beneen mandat dina jaar rek ci kaw ay néew ñu àddu si Covid 19 beeg tolluwaayam su su àddu si xibaar ni bésu démb bi rek téeméer a fukk ak yu bees rek la ñu amoon ba noppi nag ñi si doomu aadama faatu woon nañu si op Covid 19 bi euh, critique di ko di ko ca feelu ndax bind na ni dogal euh, a service national d'hygiène ñoom sa soobu nañu ci xeex bi Abdoulaye Diouf Sarr si le quotidien xamle na ni bu ñu moyuwul rek dinañu dund situation bu doy ci plan yëpp vox populi di ko dëggal ndax bind na ni jëwriñ bi nga xam ne moo gàlloo wàllu ko wér-gu-yaram li mu tontu ñi nga xam ni ñooy sàkk woyofal ci mesure barrières yi mooy rek bu woyofalee mën nañoo rek jàmmaarloo ak situation bu doy waar mu xamle moom Abdoulaye Diouf Sarr ni waxul ak artistes yi waxul ak sportif ni njiitu Emmanuel ci kopparu CFA ci trésor public bu réew mi lu toll si emplois amal nañu ko te yi ci ndaw dëkk bi rek la bokk muy yokkute bu toll si fanweer ak juróom-ñeenti milliards ci kopparu CFA ci la amoon rek ca 2018 di ko ca feelu ndax bind na ni téeméer téeméer ak juróom benn ci kopparu CFA la industrie extractive yi dugal rek ci réew mi Le Quotidien xëy fësal si xëtam bu njëkk ni coow li am rek ci accord de pêche bu UE ak Sénégal Union européenne door na jàmm ji ndax Irène Mingasson xamle na ni tàmbalee nañu rek waxtaan ak acteurs yi nga xam ni ñoom ñoo ca aju Sud Quotidien ne lu ñeer rek yorinu ko mbëkk mi équation bu mag mag rek te kenn xamul lu ñu koy résoudre la Tandian di sociologue nekk itam njiital observatoire sénégalais des migrations xamle na si journal bi dañoo waroon a rek di amal ay consultation populaire communautaire ngir mën a dugal loxo rek ci am ay migrants yu wóor yu jaar yoon te yi nag yoo xam ni euh, li dañuy dëppoo ak li nga xam ni loolee la yoon bëgg les échos fësal ni euh, lu ñeel chantage sexuel ca si kàmbaaw kenn ku doon bu booni policier la ca biir de recherche la lañu daal di teg loxo gannaaw bi ñu ko piégé vox populi xëy ci ñaari mbir yu doy waar benn bi mooy benn chauffeuru taxi sept place la ñu fekk rek mu faatu ci biir otoom foofee ca garage bu Thiès beneen bi nag mooy ca cité Alioune Sow ba ca Géejawaay benn xale bu góor wee atam toll si ñeent euh, moom rek la ñu fekk mu faatu ngay jéppata l'observateur di ko dëggal ndax bind na ni Golf Sud benn xale bu am ñeenti at moo fa faatu anam bu méttee métti ndax benn mat matelas bu doon tàkk moo ko yóbbu yéenekaay bi naka xamle na ni papaay xale bi faatu xamle na ni rek lakk-lakk boobu ci loxo nit la jaar la ñuy ndarkee pelis yi yi ma delloo leen seen i nopp ëllëg incha allah jërë ngeen jëf